dialogue dafa mës a am Sénégal avant les élections parce que l'opposition pare l'opposition dañu dialogue au avec ministère de l'intérieur des fois mu convoqué tous les partis pour discuter dafa yàgg am maintenant dire que le président de l'Afrique n'a pas le droit de convoquer parce que dafa war a confirmer parce que il n'est pas habilité à le faire c'est méconnaître comment fonctionne un État situation bii mu toog dafa am ay coow yu fi jóg venant de l'opposition Mhm. et de la société civile parlant de, de du fichier électoral lan la ñu déggul ci parrainage am na ñu ci d'accordoon am na ñu ci d'accordul mais attends kaa la ñu toog ñu waxtaanee ko ñu ne ñoom duñ ñëw parce que nit ki warul nekk candidat non il faut mu garanti ko nit ki mënul ñëw candidat mais moom it su taxawee ne garanti nit ñi yéen ñii ñëpp di ñëw ci dialogue bi doo leen nekk candidat y aura problème dialogue de sourds lay nekk kenn du déglu sa bopp parce que la candidature doit être confirmée in doit être validée ou invalidée par le conseil constitutionnel amul keneen ku koy invalider parce que du ñu kenn pour mën a taxaw naan diw mooy samp ndëndam wala diw warul samp ndëndam ñoom du kenn ci ñoom ku ko mën a taxaw parce que parce que en 2019 nag quoi qu'on puisse dire de mais cinq loolu loolu yow yaa ko wax yow yow laa ko wax. mais waxuma ko texte yi loolu. c'est pas vrai c'est totalement faux. xale ndaw yi sax dañ koy non c'est totalement faux xaw ma loo jàng nag parce que la loi. alinéa yi doo ko doo doo ko séparer. alinéa 1 dafa ne la durée du nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ci woon teg. on parle toujours woon teg non defal ndànk. mënu ci woon non on parle de mandat. c'est c'est que mandat muy sept ans ci woon teg de cinq ans ça deviendra de la répétition. mënu ko ci woon teg donc c'est évident. ko ci woon teg c'est pour éviter cette répétition moo tax mënu ko teg dañuy jàngale quoi soo déggee ci classe xam nga ni. doo wax ngay jàngale maanaam dañuy jàngale droit ngay jàngale yow munoo toog ne. il faut pas être péremptoire comme ça quoi nan la ñuy jàngale jàngale au sa cravate bi rafet na trop rek moo tax nga commencé bëri tiital tey jii du ñu toog ne la durée du mandat de cinq ans alinéa un dem ko répété waat. léegi. maintenant xam nga lu fi ne la question c' est pas ça. quoi la candidature du président su koy sam conseil constitutionnel moo koy validé wala moo koy invalidé du ñoom xam fi ne. ñoom ñoo coow yuuxu li ñu doon yuuxu moom président am na ci xalaat su ko neexoon mu toog ne du ma wootee dama ciy jël décision te su boobaa dañ koy appliquer dañ koy appliquer. ñoom ñoo doon yuuxu naan parrainage baaxul. discutons sur le parrainage ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo ne discutons sur le fichier électoral ñoom ñoo ko wax. mais le parrainage est déjà bafoué c'est-à-dire hors la loi. la cour de il faut qu'on arrête de me dire la cour de justice. pour il faut que le Sénégal On a adhéré à la CEDEAO. parce que nous avons. J'ai dit, nous sommes un pays indépendant qui. qui non, mais qui, indépendant, qui ont, mais on dit, nous sommes en souveraineté. J'ai les accords pays, nous sommes un pays indépendant qui avons nos textes règlements. Aujourd'hui, sur cette question-là, d'accord na. Ah, CEDEAO nee na. kaa la ñu toog ñu waxtaan. Oh, nga du ma ñëw. non y' a un autre politique c'est vide nag en politique. tout ce qui se fait sans moi est contre moi su <laughs> la yat bi dalee nag sa affaire la.